suñu bëgg internet yi di leen nuyu baax a baax di leen ziar te ba ngeen gisee kiñ dala yaakaar naa war ngeen ko xàmmee muy père bu Ndiaye Ndiokhbaye borom ay ci ay ci nar a seq ak moom waxtaan fekk fi nga xamante ne moo di këram ci US Sofar pour seq ak moom waxtaan ci li nga xam ne mooy làmb père maa ngi lay nuyu di leen ziar di leen bàyyi nga euh, la ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm may la wér waxoon naa la nag ca Banjul ne la kat appi jël la wëlbit gàngu waxi noppi ku ñu dër mu daanu nga am la làmb ji ngeen tudde seen bopp nag quatre appi eh, moo tax dafa bokk ci jëli làmb ba tax rek eh, maa ngi lay dalal di ñaan yàlla lépp luñ fi wax rek yàlla na neex doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog ñun di seetaan waaye lépp tegu ci dëgg ndax dëgg mooy siraatal mustaqim jërëjëf macha allah nuyoo bi am na solo Père Ndiokho Baye fi ñu tàmbalee waxtaan bi rek ci microcentral la ñu tàmbalee ñu gis euh, bu yàgg ba tey nga yokkati ko doxal macha allah doxal bu rafet euh, ba tey ja xale yi commencé cee dugg ku ci mel ne ay Serigne Baye ak ñeneen ak ñeneen tey relève boobu na noo ko gisee est-ce que xel dal na ci. xam nga ko iñaanee sa dono sa dey ñaaw presque cinquante cinq ans wala soixante ans def naa ko ci làmb yi maa tëggal Pape Diop ba mu jeex Pape maa tegal Boy Niang numéro un carrière am ba mu jeex maa maa tegal Mansour Diop carrière am ba mu jeex maa tegal De Gaulle itam carrière am ba mu jeex yor micro central man ak Ipo Ngari pendant trente il faut mu am relève relève mënul ñàkk mais euh, relève bi na tegu ci euh, yar ak teggi nag yoon rek euh, sëñ Baye xale bu am yar la nag wax dëgg yàlla man euh, makan moo ma booleeg moom Gaston indi ko ci làmb ji muy sama doom aussi parce que euh, woy juróom bu góor daaw ñu taqale ko Mor lay Mbaye nekkoon ca lal wurus euh, li ñu taqale rek mooy barsax ga mu dem ma desande fi kon ku mel noonu bu ñëwee ci ñun dugg ci suñu biir ñu boole kook ñun ñaanuñu yàlla ñëdd làmb man day ñaanuma ko yàlla man Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi ñaanuma yàlla ñëdd làmb daaw laa naru na jubile bàyyi micro central bi mais doomu aadama yi ñoo ma forcé rek ne ma euh, bul bàyyeegum waaw mais sëriñ wax dëgg yàlla mi ngi tegu ci yoon daal waaw te eh, doomu aadama dinañ ko booleeg alalam toroxal doomu aadama dinañ ko booleeg darajaam toroxal mais doomu aadama kenn du ko booleeg yaram toroxal waaw ah, loolu rek moo am solo waaw. Ah. macha allah tey su ma la laajoon microcentral yan jafe-jafe ngeen dund ci làmb lan nga may wax. Eh, microcentral mu nga jëkkee ci Alaaji Kayre Seck jóge ci Alaaji Kayre sekk dem ci Ablaye Naar ak Mor Dior. ba mu jógee ci Ablaye Nar Mor Dior ñëw ci alaaji Assane Ndiaye ak alaaji Papa Ngom alaaji Papa ak alaaji Assane Ndiaye ñoo jël micro central bi teg ko sama loxo ma ànd ak Gaston 30 ans yi Gaston def ci làmb yëpp maa yor micro central waaw. Euh, ah. yaa ci làmb. waaw bari na euh, bu nga micro central benn euh, du far. microcentral kenn mën ta xam central kenn wër ta xam d'abord kan mooy mbërëm ak kan la faral microcentral métti métti gi mu métti parce que doo toog bu lamb ji démarré ñi commencé dugal mbër yi doo toog ba lamb ji tas parce que di nga présenté ji mbër yi di nga jox woykat yi ñu woy di nga dugal mbëri moo tax métti googu mu métti nag te boo jëmee mag dem ba romb soixante-dix ans euh, war ngaa war a mën a na toog noppalu euh, loolu daal man day damay ñaan yàlla toog noppalu euh, du ma tee nag di def samay émission parce que boo nekkee mag itam man nga man ngay def say émission mais jabante bi ci làmb ji métti na métti goo xam ne Euh, boo dee mag dootoo ko mën daal waaw voilà. bu leen jaaree dugg ci waxtaan bi euh, Père Niokho fi ñu koy tàmbali mooy dama bëgg ñu ñëwaat tuuti si lamb làmb démb ku ci mel ne Falaye Balde ak Double Less loo mën a wax loo ñu mën a wax ci seen histoire ñoom làmb ci làmb. falay Balde indiwu fi boppam Falaye Balde Fodé Doussouba moo ko fi indi euh, Alaaji Mboor Ñing papay papay Biram Ñing 1958 59 mu la fode Fodé suba ca Casamance dëkk daal na mbër mu mat ñaari bërigo la ñu andi bi mu du Doussouba di ñëw ci la ànd ak le professeur Barabara ànd ak Falay Balde àndaale leen ak Demba ak Mbita ak euh, Souleymane Balde bi ñu tuddee Jules Balde mi euh, bi ñu dikkee itam bi euh, Fodé ñëwee ci réew mi alaaji mboor dafa dem jandeer booba alaaji abdourahman Ndiaye fi man falang mu ne dem ci falang ne ko dama indi benn mbër Casamance bëggoon nga bëreek moom euh, alaaji abdourahman Ndiaye ne ko ñi ma daan àndal di dem làmb ñu ngi fii ñi ma daan gunge biir làmb ñu ngi fi sëriñ si ma daan ñaanal ñu ngi fi waaye doole doole jama amoon dem na moo tax retraite di am. kan moo la ci boppam. Alaaji Abdourahmane Ndiaye Falang moo wax loolu Alaaji Mboor papaay Biram Ñing ne ko ñi ma daan àndal ñu dima ma gunge làmb kenn manqué ñu fi eh, ñi ma daan ñaanal ñu ngi fi ñi ma daan ngemb ñu ngi fi waaye doole waaw mais benn affaire day naa la ko yëgal mu ne ko mu ne ko. da ngay dem yoof boo demee yoof am na benn mbër mu fa nekk bu dem ba caw Diène soo ko jëlee day mën naa bëre moom ñu dem ñu dem wax ak Demba Thiaw Diène Demba Thiaw Diène a bëre ak Fodé Doussouba daan ko waaw euh, Falaye Baldé nag moom nga ma laaj man moom laa daan supporter ma nekk xale moo nekkoon sama mbër. mais relation ak euh, mbokk dañuy ay mbokk ba pare fa lay balde nekkoon ku large fa lay balde ku large la woon euh, xanaa xamoon ne Double Less bi mu fi ñëwee Fass la dal kër ñoom mbay Guèye mbay Guèye moo jëkk a ànd ak Double Less euh, bi mu dalee Fass euh, entraînement di bëree gars yi la ko benn euh, sunu benn waay boo xam ne moo yoroon Kilimanjaro ne ko yow bëggoo xaalis mu ne ko ah mu ne ko xaalis boo ko bëggee da ngay génn Fass dem wuti sa yëppi bopp looloo tax du ba les beru mais fan lay balde li tax ma ne la moom laa daan supporté 1963 138 combats la bëre am ci 4 défaites ak 2 matchs nuls 4 défaites 2 matchs nuls benn défaite ci Babou Ndiamban ay 2 benn défaite ci Landing benn défaite ci Boy Niang ca Kaolack keroog ba may dem Kaolack carré euh, Antoine Khoury yi laa dugg fay 225 ñu yóbbu ma Kaolack bi may ñibbisi. papay Lamine Samba mi Mbassa chauffeur taxi la woon ñu daan Falaye Balde ñu ànd man moom di jooyandoo Kaolack bandakaaru Ndakaaru papay Lamine Samba ndax naqar wu ñu amoon kon Falaye Balde relation bi mu am ak Double Less relation parenthèse la euh, Double Less xamoon loolu am cër bu mu joxoon Falaye Balde Falaye Balde moom itam parce que bu njëkk loolu moo amoon rakk day respecté mag mag yërëm rakkam loolu moo amoon waaw. diggante mag rakk la woon. diggante mag ak la woon. Fallay ko jiitu ci làmb li Fallay def ci lamb Double Less def ko fi Fallay toll woon ci làmb Double Less tollu fa parce que Fallay Baldé eh, amul mbër muy takk ngemb ci senegal ci ay jamonoom te daanu la deux fois wala trois fois waaw. huit dix fois la bëreeg landing jàmme fukki yoon la bëreeg landing ku nekk daan sa morom quatre fois ñu ma ñu match ne ñaari yoon waaw. kon ñoom suñu diggante maanaam euh, relation mag ak woon te loolu tamit da law ba si seeni doom ku ci mel ne diggante Balla Gaye ak Ama Baldé ku mu mel ne hasard amul ci làmb. moo tax hasard amul ci lam moo tax ji nga ñuy euh, yàq ak di boole euh, nañu bàyyi li ñuy def parce que mbokk fi lañ ko fekk. xarit bi lañ ko fekk ñun ñëpp kenn ku ci ne am nga mbokk ñun ñëpp kenn ku ci ne am nga xarit xarit xaritoo googu fa lay balde xaritoo woon ak duubal lees nag ak mbokk ga mu mbokkoon ak moom ba pare muy xaritam euh, bu ko xale yi euh, continuer dinañ gis jàmm mais bu ñu fexee ba départager leen te ku départager mbokk am nga problème bu rëy sa diggante ak rabu sama waxatuma nag li ngay jànkonteel ci àdduna waaw voilà loolu am na solo fa la ñuy ñëwee nag dugg ci biir combat yi nga xamante ni moom la amateur yëpp di xaar ñaari combat yu mag a mag war a am ci décembre beneen bi premier janvier diggante rëg-rëg ak bombardier pel ñoo xabaay nga yàgg ci làmb trop ñun ñëpp seen mën naa ne seen sa kanam leen defee seen carrière ba fi ñu excité ci làmb lan nga ma mën a wax ci rëg-rëg bombardier ak Modou Lo ak Boy Niang xanaa xamoon ne mbër mu mbër mu euh, mbër muy sippi rek boo nekkee fin de carrière jël ngay daan waale ñibbiwaale ko benn Balla Gaye numéro 2 moo daane victoire bàyyi làmb mais Tyson dafa daanu bàyyi Moustapha Gueye dafa daanu bàyyi Yékini dafa daanu bàyyi kon ñi fi daanu bàyyi yëpp ah ay ay ay ay champion la ñu moo tax fii Bombardier toll digganteem ak rek Reug ah man day bu ma doon jox favori dama naan euh, favori de la jeunesse Reug Reug lay doon waaye Bombardier dafay champion boo xam ne doole doxul jàmm néewul doole xanaa xamu ne léegi rek la lamb am quarante cinq ans ñu ne nga bàyyi mais mbër daan na bëre ba cinquante ans soixante ans ah léegi nag boo amee quarante cinq ans ñu ne bàyyil mais bu Reug Reug yaakaar mukk ne moo man Bombardier waaw don na mbër ñaari yoon nag rëg rëg ñaari yoon la doon mbër waaw bugguma moo jur euh, jur baayam papa Ndiaye Ndiaata Ndiaye moo jur maamam ji jur yaayam perte na la mu jëbëreel arène sénégalaise kon mam mi jur maamam mi jur yaayam la woon maamam mi jur papaam mbër la woon nga mu wone ko parce que wone bi mu ko wane mooy bëre ci séréer séréer a dàq bëre ci ci ci ci askan yi nu bokk parce que làmbi tukulóor dafa amoon làmbi wolof am làmbi séréer am mais façon technique yi ngay gis ci làmbi séréer daawoo ko jis ci làmb wolof wala nga gis ko ci làmb tukulóor wala nga gis ko ci làmb joola mu di mu dikk nag dugg ci biir séréer yi daan leen ñu jeex ñoom ñëpp mu dem jàngi xeex ah ji nga bi muy bëri di nii ah, dafay loo xam ne xeex rek la kooku moom xeex kese la léegi nag boo jàngee bëri ba mu mokkal ko ba mu mën a bëri boo boo demee boo jàngee xeex dangay ngay daan moo tax rëg-rëg dafay champion boo xam ne nañ ko bàyyi xel tey ci kaw xale yi lay jëm si de di nga bu daanee Bombardier benn mbër dootu ko bañ du Ama Baldé du Boy Niang du Modou du Balla Gaye du Sa Thiès du Lac de du kenn ku koy bañati ci biir lamb voilà. loo koy conseillé ci combat bi. kan rëg rëg di mu bëree ko waaw. ñoom ñaar ñëpp li ma leen di conseillé mooy euh, yaaw jaal dafa déparé loo xam ne ñu bari bàyyiwuñ ci xel sax parce que combat bi passé euh, bi Ama Baldé doon bëreeg euh, Modou Lo yow Jàlla jëkk a def acte boo xam ne ñun ñi nekk ci biir làmb yëpp te yàgg ci lamb dañ koy rafetlu dañ ko booleeg yow jaalu euh, Gàmbi bi muy ñëw ci lamb ji mu jëndaale ñaari mayo jënd mayo Sénégal jënd mayo Gàmbi da ñu daan ko mu woo adversaire bi ko daan solol ko mayo Sénégal bi sol mayo Gàmbi bi kon la paix n'est pas un mot c'est comportement kon comportement doomu aadama bi nga xam ne doomu adama bi am na ko ci jàmm loolu moo indi nag bi Modou Lo bi ñu joxee Modou Lo euh, victoire Modou Lo dox wuti Ama Baldé Ama Baldé dox wut si Modou Lo ñu laxasoo ñoom ñaar loolu nekk am na lu bare bare bare lu mu wàññi ci làmb ji parce que bu fekkoon ne Ama de dafa tëpp mer wala kii kon amateurs yi bu ñu génnee reyante waaye segam ñi encaissé seen sant centaine de millions ñoo fair play ñëw laxasoo loolu bokk na ci li nga xam ne defar na làmb waa loolu nag mbër yëpp war nañ cee veillé mbër yëpp war nañ cee veillé ba nga xam ne làmb ji il faut mu am un vainqueur ak un vainqueur il faut mu am ku daan il faut mu am ku daanu waaw. Modou nga tudd léegi fa la ñuy jeexalee mu am combat ak Boy Niang 1 Modou Lo dugg na Pikine deux fois daan fa Eumeu Sène daan fa Ama war a war a jàkkaarloo ak Boy Niang lan moo war Boy Niang ci combat boobu. mi ngi daje koo xam ne benn euh, mbër dañ ko daan doon ci baay wala ñu doon ko ci nijaay nijaayam mbër la woon muy Boy Niang 1 baayam dégool mbër la woon waaye li may wax toujours rek ne Modou Lo dafay mbër moo xam ne saay-saay la te dafa ay ci pied droit képp kuy jiital pied droit naan benn ñaar ñett Modou Lo la man parce que da lay doxloo ci loxo ndijoor bi heure boo doxee ci loxo ndijoor bi mu korlaak loxo càmmoñ bi bu la tëggee ko nga pare kon dafa aay ci loxo ci ci pied droit mais booy ñaanal dafay mbër moo xam ne il est polyvalent ndax ñaari tànk yëpp lay bëree moom rek laa gis parce que Pape Diop Pape Diop mbër moom rek moo daan bëree ñaari tànk boo tegee gauche mu teg droite boo tegee droite mu teg goos loolu Pape Diop la champion d'Afrique rek moo ko daan bëree loolu nag moo ñëw ci Boy Niang Boy Niang day liir làmb Boy Niang bokkul ak waa Pikine yi euh, euh, Modou Lo daan bokkul ak Eumeu Sène ku ko dàq bëree amul ci biir làmb ji Ama Baldé ku ko ëpp fit amul ci biir làmb ji mais euh, foofu dinaa fu ñëw tuuti euh, ama dafa juum euh, ci combat boobu parce que waaw bu dikkoon léewaatoo rek taxaw parce que li mu loo doon bañ la ko xañ muy jàpp bu fekkoon ne tey Modou Lo dafa ngemb ngemb li waroon a ngemb amaa jàpp Modou Lo jàpp di nga gis combat boo xam bëre boo xam ne ba nga juddoo ba nag ni ma soo amaa amaa bëgg lool ko mënuloo xañ. voilà loolu la ko xañ nag li amaa bëggoon la ko xañ takkul dara ba pare ngemboo ngemb lu seere loo xam ne doo ko jàpp ama bi muy mboot dafa tante rek moo tax bi mu tëggee mboot mi Modou Lo dafa laqare ci loxo ba ca kaw xam ne mooy jiitu moo tax euh, combat ngi noonu boo xam ne diggante booy Niang ak euh, Modou Lo combat du ko dax comme combat du ko dax parce que ñaari mbër lañ yoo xam ne benn ku ci réew amul Modou Lo réewul Boy Niang réewul benn Modou Lo nag euh, Boy Niang day xale boo xam ne ma mag ñi koy dar bu leen dégloo dina naqaree daan waaw parce que maa Mansour Diop dafa mën a bëri moo indi dégol Pikine Mansour Diop moo indi dégol Pikine ànd ak De Gaulle Mansour li mu koy conseillé De ak li muy nekk nekk peeru euh, papaay Boy Niang kenn ëpp ko fit kenn ëpp ko fit De Gaulle combat metti da ngay nàcc mu nàcc mais du daw waaw ku mel noonu bu nekkee ci kii burxaan ne fa paala ne fa moor maar ña ñi dar ñi dar ñi dar euh, Boy Niang euh, bu bu fekkee ne Boy Niang teg na làmbam ci yoon mën naa am dara ci Modou mais li may wax toujours rek dama koy toujours dama ci dama ci insisté di ci wax Modou Lo saay saay la te néewul doole ñi ma entraînement mën a bëri maa ko tuddee borom drapeau yi fukki drapeau ñett la indaale ci làmb ji avant muy dugg arène kon kooku bëri la jëkk a jàng ci xeex waaw. lu tax xeex ñoom ah lu euh, la boo xam ne euh, kenn dax koo xeex. mais Boy Niang mënoo ko dóor te tëggu la remise. day fayu parce que loxo yi jot na ñeme na du ragal te day liir lam moo tax combat gi noonu boo xam ne combat yi fi tëgg ren yëpp combat booboo ci dax waaw. xalaat bëri bi mu jeexee. bëri bi mën naa jeexe ci dër mu daal waaw. Modou Lo euh, koom boobu mu heure bu la koree bu la dóoree mën nga àgg booy ñaa mi ngi crochet gauche boo xam ne moom bu dalee ma Modou mën naa daanu mais man combat bi maa ngi koy xoole ci ci bëri lay jeexee. mais waaw mais du jeexee ci xeex du jeexee ci xeex parce que buñ jàppantee nag nga gis combat boo xam ne combat du ko dax. mais foofu la ñuy jeexalee sànq da nga ma boo Modou dafa xañ Boy a dafa xañ Ama lu mu gënoon a bëgg mu may ko mu jàpp mu jàpp ngeemam bu indilee loolu Boy Niang xañ ko mu jàpp ngeemam loolu si dana arrangé Boy Niang. Boy Niang bu jàppul ngeem sax day bëre Boy Niang bu jàppul ngeem sax day bëre te déggoo mu ne ko na nga fexey ba euh, noonu nga defoon. contre Ama bañ a takk dara nga bañ a takk dara waaw parce que euh, euh, Boy Niang day bëree loxo ay loxo yey bëre bul xool tànk yi mais loxo yi mooy bëre te diggante sukkar bi xatar bi wéyale wéng kolma mbot kal padd loolu lépp ci biir bëre la mais dafa am caxabalu biir ak caxabalu biti caxabalu biir ak biti boobu nag la la mane ci ay loxoom waaw la mane ci ay loxoom gis nga bi ko Balla gay jëlee da ko bàyyi ak tànkam waaw te ñu bari dañu yaakaar ne Boy Niang songkat la mais booy ñaa boo ko songee lay gën a garaaw waaw boo ko songee lay gën a garaaw parce que euh, technicien la daal mais dafay dajeeg technicien nag parce que Modou Lo guddul rëyul Modou Lo guddul rëyul mais dafa mën a bëre dafa mën a bëre te doo jël tànkam ci àdduna ba mu tiit wala mu jaaxle am na mbër yoo xam ne maa yor micro central am na mbër yoo xam ne heure boo leen songee ñu ne wëy sama ndey parce que dañuy tiit mais Modou Lo heure boo ne coppet tànkam da koy bàyyee yow parce que da koo mane waaw. combat bi boo ñaar dem fekki Modou Lo wala mu xaar Modou Lo songu si ko ba moo ci gën ci moom. Euh, ñoom ñaar ñëpp ku ci jëli sa morom man ngaa am problème. Boy Niang bu bu bu jëkkante dem jëli man naa am problème Modou Lo riiree jël si Boy Niang mën naa am problème parce que ñaari naataangoo la ñu yoo xam ne kenn ku ci nekk mbërëntaan nga ñoom ñaar ñëpp mbërëntaan lañ. macha allah père père Ndiokhobaye waxtaan am na solo ma bàyyi la nga tàggoo rek. waaw xanaa di leen ñaanal waa 4appuis yàlla may leen wér defal leen jàmm. bi ngeen ma fekk see fii sama gàlle ba soir te yow da ngay euh, euh, koo xam ne kitaabu naa ci rabu samawaati maa fi arne kat appi war ñoo jàpp ci yow bu baax a baax a baax parce que question mooy mooy mooy mooy làmb te say question ay question yu pertinente lay doon moo tax heure boo defee émission rek mu nekk émission boo xam ne émission bu am solo lay doon. ñu lay nan yàlla di ñaanal Sénégal gépp nag yàlla na fi yàlla def jàmm rawatina euh, élection yi ñu jëm.